صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق moom xamoon na yaa ngi fi moom dama lay yónnee discours bi du ma ñëw bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi allazi istanaa awliyaahu li nafsihi kama istanaa anbiyaahu wa rusulahu li nafsihi wa jaalahum mawdiqan li ifaadati ulumi wa asraari xadratihi waxtaarahum warasata anbiyaihi wa damina lahum al amna wal amaana wal bushra fi dunya wal axirati bi qawlihi taala alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu yattaquun lahum al bushra fi lxayaati dunya wa fi l axirati laa tabdila li kalimaatillaahi zaalika huwa alfawzu alaziim allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatixi lima ugliqa allazi jacala awliyaa ummatihi mustawdaa asraari mustawdaa ulumi wa asraari muhammadiyatihi wa warasata axwaali ahmadiyatihi xataa sadaqa fihim alqawlu majaazan maa jaaza an yakuna mucjizatan li nabiyin jaaza an yakuna karamatan li waliyin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radiyallahu an azami tajallin lilxadrati almuhammadiyati fi daairati alwilayati sabxati suwari kulliha jaamidiha wa mutaxarrikiha شيخها وأستاذها ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الشيخ أحمد ابن محمد التجاني cheikh euh, shakhsiyati hadihi leyla alkatmiya almubaraka annayira wa radiyallahu an allawxi alladi nuqisat fihi shu'unu alkatmi saaxibu faydatihi wa fassu xaatimiyatihi mawlaana cheikh alislaam cheikh Ibrahim ibnu alhaji Abdullah alkawlaxi zinati hadihi aljilsati alkatmiya wa radiyallahu an ahadi mafatixi kunuusi asrihi saaxibi alxalawaati alajiba walmashahidi alazima man balaga ala maratibi alhuyaam fi jinaabi alcheikh radiallahu anhu sayidina alcheikh alxasan dem ibnu muhammad alfuuti altijaani wa awrasa hada alxub aluzriya fi llahi abnaahu wa banaatihi wa talaamisatahu wa min timaari haadihi alwiraasati istimraariyatu alixfaali ixtifaali bi haadihi zikra alabiqa fa jaza allahu alaailata alxasaniyata wa ahbaabaha an alxadrati alahmadiyati walibrahimiyati xayra aljaza wa fataxa alayhim min asbaabi alxayraati wa karaa'imi albarakaati maa yatmanu lahum yatmanu lahum iqaamata haadihi zikra ala dawaami ala ala mustawa ala ala على المستويات آمين أيها الحفل الكريم أحباب الختم وعشاق الكتم رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ليكن في كريم علمكم وسابق فهمكم أن هذه الذكرى العطرة وهي ذكرى ليلة اعتلاء الشيخ الختمي تجاني رضي الله عنه عرش الكتمية التي هي باطن الختمية من أخص النفحات الإلهية التي أبرزها الحق لأجيالنا الحاضرة واللاحقة لنسبح في بحرها الغني بالتحف والهدايا المحمدية الربانية xadiisi fi hadihi leyla alkatmiya yaduuru xawla ihtimaam xawla alihtimaam alkabiir wal inaayati albaaliga wa riaayati alxasiisa allati kaana yuuliha sayduna cheikh tijaani li talaamisatihi wa ahbaabihi min ahli tariqihi tariqatihi walakin min min zaawiyati duaa hadihi almarra alladi huwa ahadu ak ahadu rakaisi diinina alxanif saayan ila tawthiqi silatihim bi rabbihim wa salaahi haalihim maa mawlaahum wa wadihi wadi wa wadi aydihim fi yadi rasuli sallallahu ala bisaati istizlalihim fi zillihi alazim sallallahu alayhi wa sallam fi dunia wal axirati wa duauhu radiallahu anhu mujaabun wa maqbulun qataan fi xaqi kulli man tamassaka bi wirdihi almuhammadi bi sidqin wan xarata fi silkihi l ahmadi bi ixlaasin sawaan man aasaruhu aw man jaau baadahum ila an yarisa allahu al arda wa man alayha wa duaau kama huwa maalumun huwa maalamu lubudiyati alxaalisati lillahi allati hiya illatu ijaadina wa awalu darsin yatalaqaahu almuminu min allahi taala fi matlaci kitaabihi alaziz wa huwa fatihatu alkitab fa kulluha hamdun wa sanaun wa duaun kama warada alxassu ala duaai fi ayatin kasiratin minha wa qala rabbukum aduuni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daaxirin غافري ادعوا ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين الاعراف qul adullaha awudu rahmana ayan ma tad'u fa lahu lasmaul husna al isra wa fi sunnati al muhammadiya hadisu ibnu luhayla luhayata an anas ibni malik radiallahu an nabi sallallahu alayhi wa sallam addu'a muxul ija muxul ibadati jaamiu tirmisi wa fi saxiixi albuxaari xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu wa huwa tawilu zeyli an shafaati al uzma li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi warada fiihi fa antaliqu fa aati taxta al arshi fa aqaau saajidan li rabbi azza wa jalla summa yaftaxu allahu alayya min maxaamidihi wa xusni sanaa'i alayhi shay'an lam yaftaxu ala ahadin qabli summa yuqaalu yaa muhammadun irfac rasaka sal tucta wa wasfax tushaffax fa aqulu ummati yaa rabbi ummati yaa rabbi هذه المنقبة العظمى من الدعاء والشفاعة ورثها النبي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم كمل أصحابه رضي الله عنهم وكمل الأولياء من أمته وفي مقدمتهم مولانا الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه أيها الحفل الكريم إليكم نماذج من دعوات الشيخ الساعدة البارزة من الحروف العاليات التي لم تقل أزلا ثم قيلت أبدا ala alsinati al anbiyai wa rusuli wa kummalil awliyai wa siddiqin wal aarifina fa aminu rajaan baaba lamin mu ne suñuy wax ñaan yi da leen wax amin awalan duwaauhu radiallahu anhu li fuqaraai faas wal maghrib nasalullaha jallat qudratuhu wa taalat azamatuhu an yanzura fi jamiikum bi ayni almahabati wa rida wa ifadati alfadli wal istifai wal ittibai xatta laa yadaa lakum xayran min xayraati diini wa dunia wal axirati illa aataakum minhu akbara xazin wa nasibin wala yatruku charran min shururi diini wa dunia wal axirati illa abatakum minhu wa waqaakum minhu xatta laa yatruka lahum zanban kabiran wala sagiran illa agraqahu fi baxri afwihi wa karamihi xatta laa yatruka lakum mutalabatan bi dunubi illa safa anha wa afa min daawatihi li kaafati talaamisatihi umuman wa xusuusan radiallahu anhu qawluhu nasalullaha taala li kaafatikum wa xaasatikum an yufiida alaykum buxuura al anaayati warrida minhu subhanahu wa taala ala tibqi ma manaxa min zalika akaabir al aarifina min ibaadihi wa ahli alxusuusiyati xatta takuna indahu jamiu masaawikum mamxuwatan gayra muaaxisina biha wa jamiu zunubikum wa athaaru sahwikum muqaabalatan bi safxi wa tajawasi anhu gayra muqaabilina muqaabalina biha wa nasaluhu subhanahu wa taala an yaktubakum jamian fi diwaani ahli saadati alladi ma kataba fihi illa akabira awliyaihi wa ahla xususiyatihi bi wajhin la yumkinu fihi almaxwu wala tabdilu wa an yukaxila basairakum bi nuurihi alladi rashahu ala al arwaxi min al azali wa an yuwajihakum bi fadlihi fi dunia wal axirati wa an yandura fikum bi ayni rahmatihi allati man nazara ilayhi biha sarafa anhu jamia makarihi dunia wal axirati wa min da'awaatihi al-azima li ba'di xawaasihi wa asfiyaa'ihi allati tashtahihi al-anfusu akaabiri al-awliyaa'i wa taluzzuhu a'yaanu al-aarifiina haadha ad-du'aa'u ash-shaamil lahum nasalu llah jalla wa ala wa taqaddas sifaatuhu wa asmaa'uhu an yufiida aleykum fi dunya buxuura al amwaali wal xayraati wal barakaati bilaa naqsin wal aafiyati taam min charri maa xalaqa wa min al ihtiyaaji ilaa ilal xalqi wa amma al axiratu fa nasaluhu subhanahu wa taala an yuaamilakum fihi jamian wa jamia ahlikum bi muamalatihi li akaabiri ahibaihi wa asfiyaihi min awliyaihi wa xawaasi xadratihi bila amalin minkum bal bi mahdi fadlihi wa an yufida alaykum buxuura ridaahu wa fadlahu fi dunia wal axirati wa an yakuna lakum fi dunia wa fi kulli mawtin min mawatin al axirati waliyan wa nasiran wa muhibban wa radiyan mutafadilan wa mulatifan wa li jamii alshururi walmakarihi walmadari dafian wa man munjiyan wa an yulbisakum libasa izzihi wa inayatihi fi dunia wal axirati wa an yuxlisa waj wujhatakum wa inqinaa wa inqitaa qulubikum ilayhi subhanahu wa taala misla inqitaai qulubi alaqtaabi min xalqihi wa tilka alxaalatu min allahi lil abdi mustakmilatun li azam li ismatihi min kulli zayqin wa kulli dalalin wa kulli gaflatin an illahi wa kulli tafritin fi xuquqi illahi wa tuujibu li saaxibiha an yamuuta ala saadati aluzma allati tuujibu baxsahu maa al ula innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi duaauhu radiallahu anhu li ayaani fuqahaai sala naxtimu bihi hadihi namazij al azima fa yaqulu radiallahu anhu nasalullaha jal azza wa jalla an yaxfazana wa iyakum bi lutfihi fi dunya wal axirati wa an yaxmurana bi sawaabi bi sawaabixi fadlihi wa karamihi xaalan wa maalan abadan sarmadan wa an yakuna lana wa lakum waliyan wa nasiran wa nasiran wa muinan wa muayidan fi jamii axwaali raxaai wa shiddati wa an yutixifana wa iyaakum bi kamaali alcaafiyati wa dawaami alcaafiyati wa izzi alcaafiyati wal istitaari min jamiici nawaaxiha bilcaafiyati innahu waliyu zalika walqaadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi alihi wa sahbihi xaqa qadrihi wa miqdaari al-aziim unzuru ayyuha al-xaflu al-kariim ilaa jaamiiyati haadihi ad-da'awaati alaa ixtisaarihaa ijtamaat fiihaa jawaamiu al-mataalibi wal-maqaasidi li ahli-llaahi fi d-dunyaa wal-aaxirati fa jazaa llaahu sheykh al-xatm at-tijaani annaa bi afdali maa jazaa bihi sheykhanaa sheykhan an talaamiizihi talaamizatihi aamiin wa haadihi al-majmuu'a ghaydun an faydin maa an an faydi ma jaadat bihi hadratuhu al ahmadiya min uyuni daawati li ahbabihi min xaasati xaasati ahli tariqatihi wa ammatihim wa hiya maqbulatun fi xaqi kulli waxidin bi qadri xubbi kulli muridin wa muridatin wa sidqi kulli kullin wa ixlaasihi wa xitaaman yulaaxasu fi daawaati sayidina cheikh radiallahu anhu annahu yad'u bi siixati aljamci nasalu wa fiha laftatun latifatun ila annahu yad'u bi lisaani alxadrati almuhammadiyati sallallahu alayhi wa sallam batinan wa bi lisaani xadratihi radiallahu anhu zahiran li tajtamila alxalqatu allati ashara ilayha cheikhu ibrahim radiallahu anhu arif araful xaq bi cheikh araful xalq araful xalq bi cheikh bi qawlihi alu nabii muhammadin jamun ata fi mufradin wa sihaabuhu fi diinihim diinin anif xanifin ahmadiyin wa muhammadiyin ahmadiyin wa waaxidiyin awxadiyin tilka daw tilka dawairu dawruha fi ahmadin fi ahmadin min ahmadin takfi takfi salaatul xaqi min aanin li aanin sarmadin والحاصل أن الرحيمية التي اتصفت اتصف بها الشيخ رضي الله عنه وهي الاهتمام الخاص بمريده وتلامذته إلى حد أن مجرد ذكر اسمه في أي مكان xuduuruhu lfawri fi zalika almakan bi hawlillahi wa quwatihi barisatun min mishkati rahmatihi rasul rahimiyati min mishkati rahimiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlillahi tabaraka wa taala laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminin raufu rahim wirasatan muhammadiyatan kamilatan asalullaha mutawassilan bi haadihi da'awaati al-azimati al-faa'idati min hadrati cheikh radiyallahu anhu an yu'azzima huzuuzana min barakaati ijaabatiha wa qabuuliha wa yamnahuna a'zama at-tuhfi wal-hadaaya ar-rabbaaniya al-munazzalati fi haadihi al-laylati al-gharraa'i wa yamnahu anna bi barakaati al-laylati al-mawaani'a wal-awaa'iqa wash-shuruura wal-fitana maa zahara minhaa wa maa batana yu'ti kulla waahidin wa waahidatin as-su'la wa yufarriju anna al-humuuma wa yakshifu yakshif anna alxumuma allati taxmiluha dulu wal afidatu inu wali zalika wal qadiru alayhi min hadrati fa ni'mal mujibuuna amin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cheikh mouhamadul amin ibrahima Niass xamut nag lan laa war a wax gannaaw bu kàddu yooyu jibee ba pare bi ma jotee discours bi ba léegi barki démb ba léegi maa ngi xool ne lan laa war a wax su ma jàngee discours bi ba pare wala damay jàng discours bi rek joxe ko daal di dem xaw ma lu may wax waaye man daal comme ci ndigal lay dem ndigal dana ma teg ci yoon baaba yàgg na fee ñëw comme ni ngeen ko xamee di fi def loolu yu muy tuur noonu te tuuruwut tuur boobu li muy firi rek mooy luy dotteeku te taxawut waaye bokkut ak tuur ba la nga xam ne dafay tuuru ci suuf kenn dootu ko mën a for <coughs> waaye gannaaw gi tamit yónni na ma fi ay at ma indi fi discours waaye discours ren bii moom daf ma jaaxal lool dafa dugg ci beneen xaal boo xam ne xaj na xaalu àddina bi xaalu Palestine xaalu Sénégal bu nga xam ne bët ki démb nit ñëpp a ngi tiitoon foog ne Sénégal dana dana xar léegi ñi ngi commencé di séentu jàmm dégg nga ñu ngi ci buntu nawet boog wala boog ñu ngi ci biir nawet mi ngi taw taw zahir suuf saa ngi commencé jebbi ñuy am yaakaar taw baatin ñëw tey muy bés boo xam ne bésu Cheikh Ahmad Tidiane la radiyallahu anhu yooyu yëpp daje moo tax xaatiru baaba mënutoon a def lu may ne discours bi moom ci ñaan rek la koy def waaye dama koy tënk lool rek fi mu commencé ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo tànn ay jaamam def leen ñuy ay yonent waaye tànnut leen lu may ngir boppam wastanaxtuka li def sii mu ne waaye gannaaw gi mu tànn ay waliyu yàlla naka noonu ngir boppam waliyu yooyu nag mu def leen ñooy ñoom ñooy donoy yonent yi radiyallahu euh, sallallahu alayhim wa ala alihim wa sahbihi wa sallam mu daal leen bi mu leen tànnee rek lim leen njëkk a garantil mooy dañuy am ak dal ak kóllëre ak sécurité ci àddina ci àllaaxira fu ko wax mooy bi waxee ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ne ay wàlli yàlla lañ dégg naa nag ñuy weddi ne wàlli yu amut xawma te nag dafa mel ni jàng nañ arab lool moo tax nag war nañ maa firil awliya xaj naa dañoo bëgg wax ne benn wàlli yu amut ay awliya ñoo am parce que yàlla moom moo wax ne ala inna awliya mu ne maa ngi déclaré ne am naa samay jaam yoo xam ne man yàlla maa leen tuddee ay waliyu ñooñu duñ tiit du fii ci àddina du ëllëg ci àllaaxira te yàlla dana leen bégal ci àllaaxira ci àddina ne leen lépp ñu soxla rek danañ ko am gis naa benn leetar boo xam ne bàyyee ko bind benn jigéen boo xam ne dafa bindoon bàyyi leetar di ko ñaan soxla bàyyi na ko demandal naa la ko doomi Adama dafa yàkkam ci mu toog lu yàgg affaire bi ñëwut mu bind bàyyi leetar di ko ko fàttali bindaat ko beneen leetar bàyyi jël këyit bind ko leetar na ko soxna si boo amee beneen soxla bu bokkee wut bi ma la garantil indi ko nga wax ma ko waaye soxla bi ma xasab ba garanti bu ko tuddati waaw soxla bi ma xas ba garanti bu ko tuddati indil beneen boo ko amee xanaa xamoo ne man lépp lu toq ci sama nopp bi te dëppook sama xaatir rek yàlla def na ko ba pare loolu nag bu kum neex nga weddi ko soo jàngut alxuraan wala amoo tawfiq waaye euh, lahum maa yashaa'uuna alxuraan a ko wax léegi nag bu la neexee nga ne diw bokk ci diw bokk ci diw bokk ci yaa xam ku ci bokk waaye nag am na ñoo xam ne moom yàlla nee na lu toq ci seen xel yi rek lu ñu bugg rek dafay am bàyyi nag nee na man ñooñu ci la bokk te ñun xam nañ ci dara mu ne damay tëb gannaaw bu mu waxee ne bim bim bim bim jullee ci yonent bi sallallahu alayhi ñaan yërmandeeg barke wàcc ci Cheikh na Ahmed Tidiane mu ne ak Baye radiyallahu anhu mu ne waaye mi ngi ñaan yàlla yi tamit wàcce ay barakaam ci kenn ki nga ci kenn ci ñi nga xam ne ci trésor yi yàlla wàccee ci jamono pour nit ñi jëriñoo ko ci wàllu yàlla te kooku bu ko waxee mu ngi ci jublu Cheikh Assane Deme ki nga xam ne àgg na ci bëgg yàlla ak jeex ci yàlla ci maqaama ya gën a kawe àgg ci xam bàyyi ci maqaama yi nga xam ne néew na ko ci àgg mu ne kooku moom it tamit yàlla na yàlla wàccee ci njabootam yërmande jooju mu ne waaye mbëggeel googu mu amoon ak maarifa boobu noonu surtout mbëggeel gi yàlla na ko yàlla donnaloo ay njabootam ay doomam ak ay sëtam ak ay taalibe looloo tax ma dal foofu parce que yaakaar naa ne loolu lu am solo la ñaan googu rek jaroon na ñu dajee fi pour ñu ñaan ko waaye ci làmmiñu kan ci làmmiñu wakiilu daadi mu ne mu ngi ñaan yàlla mbëggeel ak yàlla ak jeex ci yàlla gi nekkoon ci corno yàlla na ko yàlla donnuloo ay doomam ak ay sëtam ak ay ay ay ay njabootam mu ne nag bés bii bokk na ci meññeet yi nga xam ne mbëggeel googu moo ko jur ñu teew di ko di ko di ko di ko di ko def mu dellu di ñaanal yàlla njaboot gi ne yàlla na yàlla wàcce ci ñoom barke ak ay man-man ak lépp luy tax ñu mën a tal bés bii man koo def bés bu ñëw rek gën a màgg bi paase bés bu ñëw rek gën a kawe bi paase mu ne nañ xam ne ni nii ci la Cheikh Ahmed Tidiane jotee kët miye maqaamam bu kawee boobu mu ne bokk na ci jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko jamono ji pour ñi di ko taataanee barke yu jóge ci yàlla ak leer yu jóge ci yàlla dégg nga di ko jokkoo ci suñ sëriñ bés bii nii yàllaa ko fi wàcce pour muy loolu mu ne moo tax nag tey waxtaanam bi yépp daf koy def ci feeñal benn côté ci côté Cheikh Ahmed Tidiane yi comme ni mu ko doon defee jamono ju nekk am na jamono mu def ci ndigleem yi am na jamono mu def ci tereem yi am na jamono nangam nangam mu def ci baatin def ci nangam maarifa waaye tey mu ne mi ngi def ci benn côté boo xam ne ci côté Cheikh Tidiane yi mooy dafay wane ne bi yàlla nekkee rahmaanu rahimu yonent bi sallallahu alayhi sa sallam nekk aynu rahmatil aynu rahmati rabbaniyati moom ci boppam mu feeñal ko moom Cheikh Tidiane loolu dafa feeñ ci digganteem jëflanteem ak taalibe mi li may wax dama bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax parce que baaba li tax mu tànn ko du affaire yi caaxaan maanaam ba mu àggee dafa mel ni rek li wéykat bi di wax euh, waa fahaadi salaam nu ko waa ji waxee ba nga ba nga rootee ba say bagaan fees baawal nga ñi la doon faas ñi la doon xaar ba seen ndab fees dafa mel ni loolu la bëgg a jàngale fii waa ji daf ko wax ci arab kii wax ko ci olof firi ko ci olof mu ne bam bi mu àggee ci maqaama boobu leer yooyu ak barke yooyu dafa feeñ ci ni muy jëflante ak taalibe bi ci xër ci ñu baax xër ci ñu mucc xër ci ñu jege yàlla xër ci ñu sell loolu nag bokk na ci dana leen jàngal dana leen waar dana leen teg ci yoon waaye nag dana leen ñaanali tamit nag bii yoon nag mu ñëw ci ñaan yi xam naa benn ñaan rek laa ci laa ci firi parce que mu ne ñaan yàlla dafa dañoo yàlla daf ñoo wax ci alquran ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen waaye yonent bi sallallahu dafa wax ne addu'aawu muxul ibadati su fekkoon ne jaamu yàlla dafa bopp la yuur ga nga xam ne moo yore bopp bi mooy ñaan mu ne waaye ku ne xam na ne ñaan gu nekk mën naa nangu waaye ñaan goo xam ne Cheikh Ahmad jaan moo ko ñaan ñaan googu moom kenn amut werante ne ñaan guy nangu la ba mu xamee loolu nag moo tax dafa def it ju mag a mag a mag a mag ci di ñaanal ay sahabaam parce que loolu mu ngi ko doon ne ci yonent bi sallallahu sa wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci xadis bés penc su yàlla ubbee ba jox ma ma man ko ma sant ko sant goo xam ne kenn mënu ko koo sant mësu ko koo sant wax ko tagg ko tagg yoo xam ne kenn mësu ko koo tagg daal di sujjóot dañ may wax ne ma yaa Muhammad siggil nag fi mu ne laajal ñu jox la waxal koo bëgg ñu baal ko ñu baal ko tinil koo bëgg ñu nangul ko loolu nag dafa am ñu ko donn Cheikh Ahmed Tidiane moom bokku ci ba mu ko xamee nag moo tax dafa taxaw nag ci ñaanal saxaabaam yi ñaan yoo xam ne ñaan yu jéggi dayal baaba nag mu ne bàyyil xel ci ne Cheikh Ahmed Tidiane suy ñaan boo xoolee ñaan yi ñu fi tari yëpp nës alu lay wax ñu ngi ñaan du wax maa ngi ñaan ñu ngi ñaan mu ne loolu li muy tekki mooy dafay ñaan ci lisaanu Eh, hadratu nabi sallallahu alayhi wa di ñaan ci lisaanam baatinan di ñaan ci lisaanam zahiran ci ñaari làmmiñ yi lay ñaan lisaanu martabatihi huwa ak lisaanu nabi sallallahu alayhi wa sallam moo tax muy wax nasalu ñi ngi ñaan xam nga ñaan googu nag ñaan gu rëy rëy la te ñaan gu foor la te ñaan gu am demande la Cheikh Ahmad nag mu ne maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo moom la kattanam moo am kattan moo màgg mu xool ñu ñun ñëpp bëtëb mbëggeel ak ngërmaande ak bëtëb pare rekk pour sotti ay ngëneel ci suñ kaw ak tànn ñu ak bëtëb tànn mu ne ba nga xam ne rek du bàyyi dara ci yiwu àddina ak àllaaxira ci diine ak ci ittey àddina lu may ne jox nañu ca cër ba gën a mag waaye du bàyyi bépp bépp benn xay moo xam ne dafa aju ci diine wala mu aju ci àddina wala mu aju ci àllaaxira lu may ne soril nañu ko ba pare musal ñu si du bàyyi benn bàkkaar bu mag wala bu ndaw lu mooy ne labal na ko ci géejëb jé géejëb jéggaleem nga du bàyyi du ñu laaj dara duñu duñu duñu du ñu laaj dara waaw lu may ne jéggal nañu ko ñaan yooyu noonu bu ma ko façon ñaan yooyu boo ko demee mi ngi ci ku ko bugg da ko da ko da ko gis ci ñaanu Cheikh Ahmad Tidiane yi dégg nga mu ne nag léegi xoolal nag ku yàlla may ci baat yu gàtt yi ñeenti jumla wala juróomi jumla nga dajee ci dajale ci lépp lu doomi aadama di soxla war koo ñaan ci àddina ci àllaaxira ci yiw ak jege yàlla ak jeex ci yàlla ak lépp lu doomi adama mën a soxla moo xam ni ci àddina la moo xam ni ci àllaaxira lépp nga dajale ko ci baat yu gàtt yooyu te lii mu wax nii mu ne lu tuuti la ci li nga xam ne moom la euh, géej googu di ball mu ne li xew daal mooy raximiyatu googu nga xam ne moom la Seydina Cheikh donnoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dëggu ci moom ba àgg na ci fépp fuñ tudd Cheikh Ahmed Tidiane rek ci foofa ci jamono boobu ñu koy tuddee ci waxtu woowu noonu Cheikh Tidiane ma ngay ma ngay ma feeñ na fa comme ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa fu ñuy jàngeele jawaratu kamal di ko tagg mu teew fa mu ne kon baaba nee na fii ñuy waxee nii di jàng ñaani Cheikh Tidiane yi se yonent Cheikh Tidiane ci boppam mi ngi teew fii nii parce que parce que mu ne yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim maa leen yónnee benn yonent boo xam ne ci yéen la bokk waaye nag ci moo moom ci ñi gën a kawe ci yéen la bu xasee ba ak si nag seen naqar jeex na seen jafe-jafe jeex na seen lépp jeex na xiiw rek ak barke kon bu fekkee ne moom moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee yonent bi mu ñëw kon bu ñuy tudd Cheikh Tidiane surtout ci bis bi Cheikh jaan a ngi teew moo tax baaba mu ne nañuy wax amin te tey teewal suñuy soxla mu ne mi ngi ñaan yàlla ci barke ñaan yu mag yi ci barke xadratu al xatmiya wal katmiya yàlla na yàlla may ñu ay cër yu law ci barke yi nga xam ne moo barke nangu ñaan gi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane àndal te mu may ñu ci may yu rëy yi nga xam ne may yee yi nga xam ne yàlla dana ko joxe ci bés bu ci bés bii nii te yàlla dox suñu diggante ak lépp luy xay ak boroom xay ak musiba ak borom musiba dégg nga waaye lépp lu ñu jaaxali tamit yàlla nañu ko yàlla teggi mu ne loolu mooy li nga xam ne ci gàttal moom lañu baaba indil tey mais suñ nekkee ci guddi àjjuma ñuy waaja a noddu fajar ñu nekk ci barabu ki nga xam ne nee na àgg na ci maqaama bëgg yàlla ak xam yàlla ak jeex ci yàlla foo xam ne ak xam baay ak bëgg ko foo xam ne kenn xamu ko ñaan gim ñaanal doomam yi ne yàlla na leen ko yàlla donnloo ñun xam nañ ne ñaan gi nangu na waaye istimraar yi la ci soxla parce que moom ñaanam moo ko wax ci tàmbali ba ne ñaan gu nangu la buñ dajalooyee loolu yëpp ñu nekk ci bés yoo xam ne daanaka lu mat semaine mi ngi taw tey ndox maa ngi nii di wàcc ñu nekk ci bésu Cheikh Ahmed Tidiane yaakaar naa ne loolu nit war naa rafet njort ci ne lu fa nit ñaan yàlla yàlla na ko dem waaye benn dénkaane rek lay dénkaane mooy nañ bàyyi xel ci waxu boroom xam-xam bi mu waxee ne Cheikh Tidiane maqaama bi mu am ak fi mu àgg ba mu xamee lan la maanaam yoonu nangu ñaan gi nga xam ne moom la ko yàlla may ba ko xamee gàttañluwul ci boppam gàttañluwul ci njabootam waaye képp ku ko bugg yi tamit gàttañluwuñ ci yow ci ñaanal la ñaan goo xam ne du dey du deñ mukk ñu déggee ci ne xam ne bu bu ëllëgee kenn ci yéen bu gisut moromam aljanna du bugg du bugg dugg aljanna dafay bugg moromam jiitu ko aljanna bu ko defee aljanna soog neex ci moom foofu sax am na lu fa bàyyi def loo xam dama koy faral di commenter mu ne kenn ku nekk li mu am ci mbóot na ko na ko jox moromam mu yër ko lu mu ca amut jox naa ko ndigal ci mu jox ko ko waaye moom it lu waaye lu mu amut te moromam am ko nag ko jox bi ma ko njëkkee liir question bi ma njëkk a laajte mooy lu bàyyi di jàngale fii parce que bàyyi mooy joxe mbóot yi man mënoon na ku nekk rek mu jox la mbóot yëpp moom la mën na mën na koo jox ñëpp waaye li tax mu jox Ahmed Boucar mii dara jox euh, euh, euh, Abdoul Baqi jox Cheikh Nourou jox Kabir jox kii ku nekk mu jox la dara ba pare ne leen dem leen nag ku nekk jël dara ci sa morom jox ko loolu lu muy jàngale mooy mooy mooy tadaamun ak takaamul ku nekk ku nekk yéene sa morom jàmm xam nga loolu bokkeewut ak euh, maanaam euh, loo loo yër ne lii de xaaral ma lakk ko sax balaa keneen di gis parce que mokkal naa ko waaw boo ko fàttee nag foo jëm waaw bàyyi loolu la bàyyi di jàngale bëgg sa morom ba aljaan na munta neex ci yow lu may ne diw daf la faa wéttale boo ko fa jiitoo yaa ngi wéet su la fa jiitoo yaa ngi koy dootoo dootoo ragal doo doo dootoo ragal doo ko ragal a fekki waaye ba pare tamit mu feeñ ci suñ jëflante ci joxante ak taxawuwante ak susuraalante ak dégg nga ak ak ak ak yooyu noonu parce que euh, li ngay ñaanal nit ki maanaam soo may ñaanal 5000 pour ma am 5000 te yaa ngi denc 5000 mënoo ma ko jox loolu yi tamit kenn xamul lu mu baax na nag parce que yàlla rek am waaye nag euh, boo demee bay ñaanal nit dara su fekkee nga am ko nga jox ko ko loolu tamit ñaan la kon maa ngi dénk taalibe bàyyi ne Baba Lamine euh, le kiyam bi discours am bi li ci jublu rek mooy nañuy nañuy nañuy bëggante nañuy jàppalante nañuy dimbalante waaye surtout nag ci li nga xam ne moom kenn ku nekk dama musa dem ci benn dëkk taalibe bàyyi saalum saalum yi topp rek ay yow liñ la yéene ñaanal ñu am ay milliards ñaanal ñu am ay milliards liñ la yéene suñ ko mënoon man leen gis ngeen yéen da may commencé nag di bëgg a indil parce que man damaa war a toog fii yéene tamit ba ngeen am ay milliards soo ko li ngeen ma ciy sédd la comme yàllaay may rek ñaan leen yàlla mu may leen milliards te may ma ko mën tamit may ñu ko ñun ñëpp ma ne leen waaye yéen amu leen milliards waaye am ngeen lu gën milliards. ñu ne ma lan la mooy ne yéen a ngi jubóog seen borom yéen a ngi julli yéen a ngi naafila yéen a ngi jàng salaatul fatiha yéen a ngi wasifa yéen a ngi jàng jawaratul kamal lammiñ boobu noonu soo ci dëkkee di wax yàlla yàlla na yàlla dimbaleel ma bukkaar mi parce que damaa bëgg mu dimbali ko te man mënu mënu ma ko dimbale bu yàggee yàlla dimbali kon nga toog fi naan ma damay xaar ba am milliard defal la dara te yaa ngi am salaatul fatiha benn salaatul fatiha par bés boo ma ko mayee xajut ci sama dund bi xajut sama àllaaxira loolu yi tamit kenn xamul nu kon nañuy ñaanalante nañuy yéeneante jàmm nañuy ñaanalante nañuy yéeneante jàmm te dimbalante te nañuy suturaalante wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fekkee wu ma ko ci ci waaye dégg naa ko bu làmmiñi bàyyi ci kese muy lu wér ñi ko fekkee xam nañ ma daan am nag question bu ma daan laajte waaw lan moo tax Nigéria ñoom xam nañ xam nañ ñaanak ñaan ak bàyyi Mauritanie xam nañ ko ñeneen xam nañ waaye lu tax Sénégal heure bu nekk rek ñuy jàmbat heure bu nekk rek taalibe Baay yaa ngi jàmbat amuñ dara da ñaanal leen ñu mënuñ ñaanal leen ñu mënuñ gis nga li nga wax nii ci ci Baay léegi ak euh, kooku seet si woon ko mbokkam moomu dal na sëñ Mahi sëñ Mahi moo ma nettali xalifa ne ma dafa am benn waay bu ko dab ne ko waaw yow Baay moom warlu yooyu mu daan warlul nit ñi nga wax ko rek mu nam est-ce que am na ko ko man ci yéen maa yi ne ko teyal dem dayo baaxut yow da ngaa da ngaa tëb ay étape dafa am loo war a ba pare demal nga laajteel ma ndax taalibe bu dëggoo noona am na ba léegi déet boo ko gisee nga ñëw ma wax ak yow waaw ma ne léegi lu tax bàyyi wax loolu ba pare taalibe yi bu nekk ñuy jàmbat naan amuñ amuñ amuñ amuñ amuñ ba benn bés nag ma yem ci benn leetar boo xam ne Aliou Diop dama koy tudd pour pour gërëm ko ci loolu parce que xaw ma gëjoon naa koo gis sax mu toog toog rek sama téléphone bi sonné ma gis benn benn message ma liir ko muy leetar yi bàyyi mu may tontu question boobu ma doon laaj. bàyyi dafa wax ci leetar boobu ne taalibe ñaari dëggu la am dëggu zahir ak dëggu baatin mu ne dëggu baatin bi Cheikh Abdoul Bar gis nga leetar boobu mu ne dëggu baatin bi li koy yóbbu mooy sidqul mahabbati fi cheikhi wa salbul iradati boo buggee sëriñ bi ba def li ñuy wax sëlbul iraada mooy amatoo bëgg-bëgg ci kanam sëriñ bi lu sëñ bi bëgg moom nga bëgg lu mu bañ moom nga bañ mu ne su fekkee dëggu ne ci yow loolu mooy yóbbu moo lay yóbbu yow doo yow loolu doy na la maanaam da ngay toog rek yëg ne yaa ngi yéeg moo tax li Cheikh Bachir doon wax léegi ne ci diggante su gàtt kii mu ne àgg na ci maarifa foo xam ne loolu la maanaam bu amee dëggu googu noonu ngay gaawee loolu sa yoon new ci dafa mel ni rek waa ji ñëw ci avion bi yow dañ naan la yéegal toogal takkal sa ceinture bi nangam mais li ci des xamoo ko man ba ma dalee dugg avion ba léegi mosuma gis euh, aviateur te bu nekk yaa ngi dugg avion di dem ak ñëw donc sa yoon nekkul ci li koy dawal lan la yow da ngay toogal fi nga toog rek def liñ la wax rek dangay toog rek ak mu ne loolu mooy baatin bi bàyyi nag teg ci ne waaye dëggu zaahir bi ci taalibe dara du ko téye lu may joxe addi ak xidma ma ne ah, tontu baa ngi noonu. déglul de Cheikh Abdoul Baqi mu ne am na ñoo xam ne ci sama jamono ba may départ dañoo àndoon ak man ci mbëggeel googu ak sëlbul iraada si googu ci diggante su gàtt àgg nañ ci maarifa ak xam yàlla foo xam ne benn góori yàlla mosu koo xeñtu waaye mu ne ñooñu noonu ak li ñuy àgg àgg ci maarifa bu kawee boobu bañ bàyyee xitma ak ak ak joxe àddiya seen àddina dafa sooxee méngoowut ak seen baatin mu ne yéen taalibe yi fi ngeen àgg ci maarifa te xam ko su ngeen bëggoowee seen àddina tollook noonu nangeen di joxe àddina di xidma ci la waxee sax ne bu fekkoon ne taalibe bu nekk am waral na boppam benn xidma boo xam ne wala benn àddiya boo xam ne moom daf koo forcé boppam maanaam damay fayeeku weer junne laay fayeeku waaye ñaar fukk bii moom wala juróomi dërëm bii du ko lekk ci sama salaire ma giiru dund heure bu ma ko jotee rek bàyyi laa koy jox mën naa ko wax taxaddusan bi nematulaay sama yaay Ami Diop ba muy ut liggéey suma yaay indi ko ci bàyyi bàyyi ñaanal ko bi mu amee liggéey bi mu jàng am liggéey bi mu amee liggéey suma yaay def na ko li ngay fayee bàyyi mooy sa salaire bi def ci am loo xam ne moom dootoo ko laal booba billet la ñuy fayee ko mu nekk société générale su fayee ko nii buy fayee ko ji dafay jël enveloppe jël enveloppe bi rek bu fayee ko ba pare rek jël li muy jal addiyee bàyyi ji def ko ci daal di ko tëj tant que joxut ko baay ba pare du lekk du lekk lele bi bàyyi génne àddina mu di ko defal euh, Serigne Aliou am na benn bés sax am ci lu reeloo dañu toog nii mu am ay lettres français ñu di ko ko jàngal ba agsi ci lettre boobu euh, bi jógee banque ba am ko ne ma jàngal ko ko mu ne ko lii lettre ami Diop la neex naa jàng daal di jël denc parce que boobu ñun xamuñ li muy wax ndekete boobu li mu ci jublu mooy xam naa xam naa lettre bi lan la waaw bu weer dee rek moom mooy xamal la weer dee na mbóot mi sax li ci doy waar sax mooy bi Serigne Aliou génnee àddina sama yaay jooju noonu cor na la la indil la indil enveloppe boobu waaw cor la ko indil di ko jox bàyyi nag mu ne su fekkoon ne kenn ku nekk ca la ngay liggéey am nga loo ci waral ci àddiya wala am amoo xaalis waaye am nga xitma boo xam ne waral nga ko sa bopp di ko def bu boobaa dana ngeen gis ne seen baatin bi ni muy naawee seen zahir bi dana tolloog moom ma ne kon Aliou Diop dama yaakaaroon ne dafa kii waaye xaw lu ko yónni parce que lu tax mu gis leetar boobu rek gis ne man la ko war a yónni te ñaar fukki at fanweeri at maa ngi ut maa ngi ut euh, question maa ngi laajte question boobu kon question baa ngi noonu waaw dama ko commencé woon wax nag mais xam nga nit ñi dañoo doy waar ma dégg ñu naan ay moom mbaadu dafa ñàkk rek di dafay dafa bugg ko ko jox xaalis ma leen wax dëgg yàlla nag bugg naa ko ko jox xaalis waaye ñàkkuma de dëgg yàlla ñàkkuma nag ñàkk moom sori naa ko lool sax lool sax waaw du ci xis du ci maanaa waaye nag xam nit ñi ñoom ñooy nit ñi rek ma ne la nag kon Cheikh Tidiane sax am na ñuy wax ne gars yi dañuy laaj xaalis bi mu waxee ne ñu jox ma xaalis danaa ci xamee am na ñu am na ñum jaaxaloon lu tax muy laaj xaalis waaye ku gis Cheikh Tidiane bu jëlee xaalis bi ni mu koy def ñaari affaire rek moom la ci jublu woon ci xaalis bi dimbale ñi ñàkk dimbale ñi am dimbale ñi ñàkk mooy joxe yombut waaye jëmmam ji dana tax ñu joxe suñ ko ko joxee mu jox ko ñi ñàkk waaye joxe ki koy joxe yi tamit kiy joxe yi tamit jëmmam ji dana tax mu joxe bu joxee yàlla daal di mucc waaye ndekete Cheikh Tidiane jàngalewul loolu yi xam nga lan la doon jàngale jàngal ñu ñun ñu mën a jo ñu ñu ñu tàmm joxe ngir yàlla waaye xam nga joxe tariqa bi jaral ñu ko fayda bi jaral ñu ko ñooñ fayda bi jaral ñu ko dégg nga xam-xam jaral ñu ko loolu la doon ji loolu la doon gis bu fekkoon ne heure boo yëkkatee junne rek bugg koo joxee sa xel Cheikh Tidiane lay daj ne moom moo wax ne jox leen ma ko nga di ko joxe ngir lim ngir moom kon da ngay daal di xeeb junne bi bugg a bugg joxe ñaari junne soo ko amee dégg de kon nag euh, loolu loolu mooy moom laa déggee ci ci kii baax yi euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax parce nag xam Euh, xeet bu nekk dafa am nit ñi ñuy sagoo nit ñëpp yem waaye nag yàlla moom mooy def am loo xam ne ñëpp a ko bokk te ñëpp mënuñ faa toog di ko garde yow nga toog fa di ko garde xanaa ma nettali la rek lañ wax am na ku ma dégg mu di ko nettali waaye wax ji pa pa Amadou Amadou pa Amadou Thiam moo ko waxoon dañu indil Serigne Aliou benn benn Mercedes boobu Mercedes yombut yombut ñi ko fi am bëriwul ñu jëlee ko Nigéria indi ko. mu indi ko ci jumaa ji ne ne ne sëfoor bi buñ julee gee na ko indi balaa ñuy kii noonu bu ko defee balaa ñuy tasaaroo sëriñ si imaam yi mu wan leen ko ñu ñaanal ko mu indi oto bi ku nekk ñaan ku nekk ñaan ba du caam bi mu ñëwee ne ko man nag danaa ñaan waaye damay wax ba pare soog a ñaan mu ne ko looy wax mu ne ko sëriñ mu naa ah, mu ne ko oto bii ba mu jógee Nigéria yàgg na lool te ci ñun ñëpp la jëm si woon waaye nag yow yaa ko fi xaar moo tax bi mu ñëwee yow ci yow la ñëw dégg nga Abdou Ba du ma firi de foofu lay yem waaye daal li ma mën a wax daal mooy nee na ko oto bi moom ba mu jógee Nigéria yàgg na te ñu ci ñëpp la jëm si woon waaye yaa ko fi xaar loolu nag firiwut ne sax yaa gën nit ñi wala yaa nangam mais mbir mi noonu lay demee oto suñ ci nekkee il faut benn chauffeur lay am ñi ci des même buñ mënoon a dawal oto yi tamit dañuy toog ci gannaaw rek noppi xanaa mu sonn ñu jël waaye nag ñaari nit dawalandoor oto mënta ne moo tax xëccoo bi jaru bul yor tamit ba tax nga foog ne yaa yaa yaa yaa moom nit ñi moomoo nit ñi waaw xanaa oto bi moom lu loo nekk nekk chauffeur bi xanaa ki jënd oto bi moom moo la moo la moo la gën a forme kon nag nañ nañ nañ jox Ibrahima Ndaw mu def kii man nag euh, Baba Lamine xaw ma lu ma koy wax waaye daal euh, xam naa ne euh, yow yow Nuuru foog foog ma foog ma sonal la parce que maa ngi bugg bind ay sumay jaar jaar. waaye nag sama alaaka ak diggante ay nit ñoo xam ne dëgg-dëgg ràññee naa leen te ñu am lu ñu pàtt ci si ci sama dund parce que Baba Lamine ba mu commencé ànd ak man di ma yóbbu Nigéria ak di ma yóbbu ci Casamance ak léegi mi ngi dem ci fanweeri at ak nangam xaj na su ma bàyyi woon ak sama bopp kon am na yeneen yu ma yoo xam ne heure bii maa ngi ci waaw waaye lii rek mbir la lii rek mbir la danañu jàngal lu bari mu ñëw. pour temps bu bëggoon a ñëw mu ngi mi du maanaam yaramam neexul de waaye mën naa ñëw parce que bu ko ne danay forcé di dem te bu forcé woon ñëw waaye déedéet daf ne déedéet foog ma préparé leen ni ma bàyyi préparé woon foog ma fexe ba taalibe yi bëgg leen ngeen bëgg leen parce que lii dana jur man mbëggeel gi ma amoon ci yéen yokku yéen i tamit mbëggeel gi ngeen amoon ci man yokku cofeel gi yokku ba pare euh, teraanga ji ak weg ak ak yëgante bi yokk loolu lay suuxat ci ñun nañ xam nañ xam nañ xam junj yi ñu jàpp ko parce que lii doo ko fàtte mukk waaw kon nag euh, ibrahim Ndaw euh, ñu jox la nga nga nga tëjal ñu صلاة الله ثم السلام فطرها عاشق فيك و